boo yëpp jóg boole lu lépp luñ mën at luñ mënul ba ci das mi mooy ci bigit bii ñu nekk moom dafa defoon tamit benn collecte benn fond joxe numéro am booy ñoom Baye Zal Dia Pape Diagne Demba Jama Pape Sarr mi moom léegi da sama doom baay la moom dafa mel ni ñoo bokk ndey ak baay Mortala duñu ngaaga Zoro Ondu la Fou Latif ñoom ñëpp daal ñoom laa xam ni mobile moom maa ngi ñëw ci moom mobil 2. mobile 2 maa ngi ñëw ci moom. barki Serigne Saliou daf ma woo barki dem ba bañ ne millions ci des daf ma woo na ma yalmin ba fa ne ko naam mu ne ma kaañ jaay oto bi Ford bi. kaañ koy jaay dugal ko sa estati ma ne ko mukk doo ma gën a gore yow oto bi ñoo ngi la ko may même même pas une semaine nga ne pour ñu jaay ko sénégalais yi. monde entier man wóolu naa leen ñoo ngi may yónnee fu nekk seen xaalis mu mobile ne ma mun na mat wala mu bañ a mat mane buy mat yàllaa xam mais nii nu ko gaay yi jàppee nii balaa balaa 31 balaa la 30 sax xaalis am naa njort ni dina mat ndax gaay yi nuñ ko jàppoo nii.